jamono yi mu ngi foofu ca Chine elle s'appelle Fatima Silla euh, plus de dix heures de vol la ñu def euh, mu ànd ceeg ñoom Adama Kandé avec l'équipe dynamique ku ci mel ni Papi euh, ñoo ngi foofu ca Chine di représenter le Sénégal parce que tout simplement Sénégal moo doon basket foofu noonu tey nag am na ñu match bu ñu war a jouer ak Canada suba la suba lañ koy jouer hmm. ci yàlla suba ñu gisati leneen rek ay eh waay suba ñu gisati non suba dañu am ndam ah suba dañu am ndam ah Canadien da ngay canadiens ah, yi jàngal sénégalais yi ñëw fii di ko toj. jaajëf dëgg leen mën a ba suba xaw ma dégg dinañ ko waxaat. mën nañ leen kii de. sénégalais mën nañ leen doon mën nañ leen doon waaw te canadien ah, ah ñu ah, pari man boole ko ñemee rek ñu pari léegi ñu ngi dem ci weer bi dee na de euh, bu ñu woowul tey woo suba ba gannaaw suba kaale ñu pari seen i ay sa non non sama téléphone laay teg euh, sa téléphone ngay teg boo tegee sa téléphone ma teg sama téléphone jeex na ab njokolaas alaaji kaay ma wax la nag man ay paris yooyu du ma ci yërëm nit de. bu ma lay gagné di jaay sa téléphone. mooy man mi kon maa ko yem parce que du ma la baal ba doon jooy sax ma la baal. waaw bu noonu la mel. gars maa a. ah mm-hmm. yoo xam nga noonu laa mel. <laughs> kon baax na baax na baax euh, benn Mokhtar mooy sama seede daa bëggee. ak du ma jël seede fii ci plateau parce que dañuy dañuy dañuy jàppalante seen biir ndax ñoom ñoom laa fi fekk ah, man maay nouveau ci biir kër gi euh, moomoo ci sama seede la bokk ak benn Mokhtar ak daa bëggee téléphone nga teg sa téléphone ban téléphone la. mooy téléphone boobu iPhone la d'accord très bien. man mënu maa sama téléphone ndax damay def publicité damay bañ euh, ñu tirer ma les oreilles parce que jaay dégg naa waxtu bi dalay déglu ci rajo bi. moom rajo bi dégg naa te oto mooy mooy mooy bureau bi. waaw lépp ci ci ci ci oto bi. 88 point 4 wax bii mu ngi déglu kon bu ma waxee kii bi te ñu kii ak Aysatu tamit xam nga dafa. waaw kon kon ñun est-ce que lu ñu waaye euh, euh, dama bëri affaire damay ñàkk damay tëb dal rek dama ràkkaaju ah sénégalais xam nañ xam nañ ne damay ñàkk waaw loolu yëpp kii waaye terewul nag ay ma wax lan nag de dafa lañu ay clim fii de ay spirit yu mool ay frigo ay frigo ay frigo da nga ceen rek waaw kii bi la facochère bi la facochère bee ko jàpp bi la tudd facochère bi gis boppam. la wax loolu.